wal aslu fil mabni an yusakkana waaye teewul wa minhu am na ci yu ñu binaa lu génn cosaan zoo fatxin luy borom fata niki ayna ñu tànn fata taxfifan wa zoo kasrin ak borom kasra niki amsi ñu kasra ko ndax liltiqaa i saakinayn ñaari sukkoon yu daje duñ caasaf genn daanuñ ca kasra genn ci cosaan aywa wa dammin ak damm niki tasbihan bil gaayaat yooyu yett niki ayna ca fataaga am si ci kasra gi xay su ci dam wa saakinu li ñu binaal ci sukkoon te kooka nag moo ne ci cosaanu binaal mooy baatu kam ak yeneen yi mel na noonu wa rafa wa nasba jalan iraaba lismin wa ficlin naxwu lan ahaaba waj al defal a rafa wa nasba iraaban ñu di ay liraab lismin wa ficlin ñeel ab lisim akub feel ku ci ne danañ ko rafa danañ ko nasab lu tax li annahuma iraabul umadi wal umdatu takunu isman wa takunu filan rafa ak nasab mooy liraabu umda yi umda xam nga ni mooy ponk jumla bu mag mooy musnad bi wala musnad ilayhi bi musnad bu ñu ko waxee mooy fi'l jëy ànd ak faayilam ma mu wéeru ci moom wala xabar jëy ànd ak mubtadaam ma mu wéeru ci moom kon mubtada ak faayil ñooy musnad ilayhi fi'l ak xabar ñooy musnad du dëgg te yu kon rafaak nasab ku ci ne danañu ko ko def du dëgg boo nee zaydun qaa'imun rafaa nga mubtada rafaa xabar soo nee yadribu zaydun rafaa nga feel rafaa nga faayil soo nee lan yadriba amrun maanaa lan yadriba dégg nga nasab nga feel soo nee inna zaydan nasab nga lisim te lisimu inna moo doon mubtada rek kon umda la aywa kon rafaa ak nasab mooy liraabu umda yi ponki jumla yi musnad yeeg musnad ilay yi amma xafad ak jasam loolu jëfu araf la woon ci cosaan ñoom ñoom ñoom looloo tax ñoom jasam jëfu xaraf la woon ci cosaan xarafa koy def lam ak in ak yooyu xafat xarafu xafat da koy def ci cosaan ndax bu ñu ko laafee mu daaf xafat ko sax maanaa xarful xafdi moo fa nekk wañ nanga ko def kon yooyu yaar ñeel lisim ak feel yëpp ndax yooyu mooy liraabu umda yi te lisim ak feel dañuy doon umda moo tax naxwu mel ni lan ahaaba duma ragal nga nasab mu daari on moomu lil mutakallim ci lan moomu nga xam ne xarfu nasab walis mu lisim xat xut si sa jagle nañu ko bil jar yi ci jar jubluwul ni lisim jar dong lañu koy def kat xam nga lisim dañ koy rafaaka nasab kon dafa xalbu ibaara bi ci àqu ibaara bi moo doon mu ni wal jarru xat xussisa bil lismi waaw kay jar la ñu jagle lisim lisim dong nga ko moom keneen du ca bokk feel ak xarab seen yoon nekku ci waaw kay mu neeti kama xat xussisa ni ñu jaglee al feelu feel bi an yan jasima ci muy jasamu ba tey wa fil ibaarati xalbun jot naa waxin bi ba tey ndax li mu bëgg a wax dëgg mooy wal jasmu xat xussisa bil fiili jasamit jagle nañu ko feel moom doo nga koy moom lisim yoonam nekku ca waaye nag xalbul ibaara ci loo xam ne maanaa ya jege na yaatu na ci waxi arab ñu naan arrattu libila alal xawl arrattu libila alal xawl te lu doon cosaan arrattul xawda alal ibil loolu la ñuy wax xalb moo tax ñu ni su fekkoon dafa ni nag wal jarru qad xussisa bil lismi kama qad xussisa jaal jazmu bi fiilin faalama waaw kooku bu ko waxoon noonu nag kon mu jaar ko ci xaqiqa ba léegi su rafa farfa bi dammin wansiban fatxan wa jur kasran ka zikrullahi abdo yusuf cosaanu liraab yi bu dee rafa cosaanu mandarga cosaanam mooy dam bu dee nasab mandarga cosaanam mooy fatxa su dee xafat man wala nga di jar mandarga cosaanam mooy kasra mu farfa bi dammin seen misaal ñoom ñett zikrullahi abdahu yasurru zikrullahi tuddug yàlla tudd abdahu jaamam yasurru dana bégloo jaam ba ëllëg yàlla moom man zakarani zakar man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain xayrin min malai xadisu rabbaani kooku kon tuddug yàlla di tudd jaamam fa malaaka ya ay daraja jaam jaam boobu texe na di man zakarani fi mala in zakartuhu fi mala in xayrin min mala jaam bu ma tudd ci moom dong ma tudd ko man dong jaam bu ma tudd fi mbooloo ma tudd ko fi mbooloo mu gën mbooloo kanam malaaj moo moo tax mu ni zik léegi misaalu rafaa gi zikru misaalu xafat gi laahi misaalu nasab gi abda yooyu yette li si li raab la li si am yasuru tudd gu yàlla tudd jaam nag mu ni yasuru da koy bégloo ndax day tegtale ni jaam bi nar naa texe wajisim jasamal bi taskiinin ci sukkoon mooy màndarga cosaan ba ah lu dul foo xamee ni ci fuñ fu ko jasam fu ko xasaf mën a remplace ci fiil yu juróom yeeg mu'tallu laaxiri wa xayru ma zukira lu bokk lu dul li ma tudd ci màndarga nag yanu bu day remplacer am ma zukira de fi samaniyati abwaabin naxwu jaa axu bani namir léegi axu bani namir axu lu ñu rafaala mooy faylu jaa waaye mandarga mi du dàmm waaw a ko remplacé axu mudaaf la bani mudaaf ilayhi la waaye mandarga xafadam du kasra yaala war fa rafaal bi waawin ci waaw bi waawin wan sibanna bil alif wajurur bi yaa in ma min al asma asif léegi lisim yi juróom lay bëgg a wax mu ni nag war fa rafaal sa ma li nga xam ne mooy ma fool orfa ma ci sataru ñaareel bi war fa rafaal ma li nga xam ne asifu danaa ko tudd asifu bi maanaa adkuru subhanallahi ma yasifoon wasafa lii fulaanun maanaa zakara lii wasfu bi maanaa dikr kooku bare maa li nga xam ne asifu danaa ko tudd min al asmaa yi ci isim nañ ko rafaaye bi waawi wan si ban na nga leen nasabe bil alif wajurur na nga leen jare bi yaa in min zaaka bokk na ci yooyu ñuy rafaaye waaw di ko nasabe alif di ko jare yaa bokk na ca baatu zoo zoo zoo nag am na ñaar ci waxi arab am na zoo boo xam ni ci lisim yi juróom la dégg nga nga mooy biinu wax nga xam ne fokk day laaf te it maanaam mooy maanaam saaxib boroom nangam aywa am na beneen zoo nag boo xam ne ci loxatu tay in la ne kooka ismu mawsul la ki fa inna al maa maa u abi wa jaddi wa biiri zoo xaway zoo xafartu wa zoo tawaytu maanaam wa biiri allati xafartu nga xam ne zoo jooju dégg nga su ko defee zocca la in abaana su fekkee dafa biral maanaa dafa tegtale soxbatan àndaale maanaa saaxib zoo maalin bi maanaa saaxibu maalin kon boobu la nu wax pour mu dàq zoo boobu ma la wax kooku nag wal famu famu ji firi gémiñ dana ca bokk waaye xaysu abaana xaysu baana fufu facce almiimu miim minhu ci moom mu des faaga kon su ko defee laamu baat bi nag mooy xarafu ràgg woowu nga xam ni day doon waaw léeg-léeg ci rafa doon alif ci nasab doon yaa di soppeeku kooku waaye amaa buñ ci miim bi nekkee kooku moog ni ñuy def baatu yadu ñooy yem kon dañu koy liraabe ay xarakaat yu feeñ ca kaw miim ma hada famun raaytu faman loolu ngay wax wal fa mu xaysu baana fu fu facce minu ci moom ak mimu mim kooku ci lisim yooyu juróom la bokk naka noonu ya ko mottali baatu abun ak axun ak xamun kadaaka comme noonu la ci lirab boobu ñu leen di lirab dégg nga abu ak axu xamun ak mooy xaribu zawjil marati maanaam gorob jigéen ay mbokki jëkkëram ñooñu mooy xamu nag góor ama bu fekkee ni mbokki jabari góor kooku moom duñu ko xamu dégg nga waaye xatan lañu koy wax mbokku jabaru góor xatan góor soo ko ne xatanu ko da nga ko ne maanaam sa mbokku jabar jigéen soo ko ne xamu ki da nga ko ne sa mbokku jëkkër séxru ka nag ñoo ko ci yem ñoom ñaar bu dee góor ak jigéen séxru mbokku jëkkër ak mbokku jabar yëpp moom la goro waaye ñoom ñetti baat yëpp goro doom lay firi ci wolof waxa waxanu xanu ca la moom nag moo di juróom benneel soo ko ci boolee dégg nga moom juróom benn a moo tax abun axun axu xamun kazaaka dégg nga bu nga ni zoo ak famu ak abu ak axu ak xamu yooyu ñoo doon lisim yi juróom kii nag dolli na xanu mu juróom benneel comme ni mul xani summa xanoo ki saadi su les xanu wa naqsu mankeel wal iraabu bil xarakaat mankeel maanaa wacc laamu baat ak liraabe ay maska ci xaraf yi woon ci digg bi ni ki nuunu xanu nga xam moo waroon doon aynu baat nee na loolu axsanu moo gën a rafet min al itmaami wal iraabi bil xuruf fi hada laxiri ci bu mujj bii di xanu yële nag lu ca gën a rafet yële moom nee lañu leen di def du dëgg yee abu ak axoog yooyu du dëgg ci kaw nag seen sartu jëf mooy ñu laaf dana ko wax léegi bon nag bu ci taqoo laaf faw ni kizoo jarul tuddal sart bi ndax moom du tàggoog moom waaye axu ak abu léeg-léeg nga laaf leen ñu bokk ci lisim yi juróom léeg-léeg duñu laaf dara ñu di leen liraabe ay maska mu bokk ci yeneen lisim wa naq wa naqsu manqueel te mooy dindi xaraf ku nooy woowu nga daan soppi muy doon ma mandargay liraab fi hada laxiri ci bu mujj bii nga xam ne mooy xanu moo axsanu moo gën a rafet min al itmaami wal iraabi bil xuruf di wax xanooka raaytu xanaaka marar nazartu ila xaniika nee na loolu doon wax hada hanuka raaytu hanaka moo ko gën mooy naqs wa yanduru wa fii abin wa taaliyeyhi yanduru wa yanduru dana néew moom naqsu googu gën a rafet ci hanu néew na nag fii abin ci abin wa taaliyeyhi ak yi ci topp te mooy axu ak xamu yooyu ñoom naadir ngay fekk arab di ko wàññ ñoom mat itmaam ak liraabi ko xaraf gi loolu moo gën a fasaaxa ci ñoom moo gën a siiw lu néew ngay gis ñuy wax abu ni kese ni ki shaacir ba ni bi abihi iqtadaa cadiyun fi lkaram wa man yushaabih abahu fama zalam xam nga ni bi abihi lu mu ko jare kasra wa man yushaabih abahu lu mu ko nasabe fata kooku néew na ci abu ak axu dégg nga xamu kon yooyu ñoom itmaam ak liraabe xuruf yi moo ci gën a bare daal wa fi abin wa taaliyayhi yandur yandur su ko defee mu ni nag yooyu nag yooyu yett abu ak axoog xamu xasruha xasru leen sax luy xasru maanaam mu am alifu mujj ca alifu madd alif mujj ca goo xam ne kenn du ko madd laal maanaam maqsuur mooy loo xam ne alif ga hamsa néewul gannaawam mamdud mooy loo xam ne alif am hamsa ne ci gannaawam ni ki sakra maqsuur la xamraau alifu mamdud la abun ak taali yeyhu yeyhi nee na naqsu googu gën a rafet ci xanu ñoom dana néew ci ñoom wa qasruha qasru leen sax ashharu moo gën a siiw min naqsihinna nga naa bàyyi fa alif nga naan raay jaa abaahu raaytu abaahu maratu bi abaahu ni ki inna abaaha wa abaa abaaha qad balaga bi fil majdi gaayataaha inna abaaha ni ki su ko defee wa fi abin wa taaliyayhi wa qasruha qasru leen ñoom yett yooyu asharu moo gën siiw min naqsihinna ni ki bi abihi jooju mu la misaal wa shartu zal iraabi sartu leraab bii nuy wax ci yetti xaraf yi mooy an yu daf na na fekk ñu laafal lisim ya an lisim ja ñu laafal ko dégg nga li xayril yaa i laalil yaa i maanaam laaji xarafu ataf la laalil yaa i fu ñu ko maatuuf mu alayhima dañu ko xadar maanaam an yu daf na li xayril yaa i laalil yaa i maanaam laalil yaa i maatuufun ala li xayril yaa i ju ñu xadar kon vi zo mi taqoo laafe faw kon moom liraab jooju lay taqoo faw yi ci des nag kuñ ci laaful duñu ko ko def dégg nga naan dégg nga ni ki tey boo ne hada abun karimun marartu bi abin rahimin lu demee noonu ni ki masalan boo ne jaa a axu abika axu dégg nga yaa ngi ko rafaaye waaw ndax dafa laaf abi ji ci kanam abi mudaaf ilayhi la yaa ngi ko xafada yaa ndax dafa laaf kaaf bi ci kanam za mooy misaalu seen nasab xaal la zaati laa in mbir mu muy boroomu kawe loo ko nasabe alif ndax dafa laaf ma ngi laaf itilaa néewoon naa la zo moom toujours laaf lay dëkk kon za moom du jóg ci liraabu lisim yi juróom dégg nga bil mu bàyyi boobu bunt dem ci beneen buntu niyaaba mooy tasniya bil alif irfail musanna wakila ida bi mudmarin mudaafan wusila irfa rafaal al musanna lu ñu tasniya musanna mooy lan mooy maa wudia lisnayni wa agna an il mutaatifayni kooku mooy baat bu ñu lisim ju ñu tëralal turu ñaar mu remplacer ñaari way atafante yi au lieu nga naan jaa zaydun wa zaydun nga ni jaa zaydaani ca la nu xamee ni kon baatu huma damir kenn du ko wax tas ni ndaxte baatu huma amul mëneesu koo fakk def ko yaari lisim yooyu atafante zaydun nag banoon nga ni jaa zaydun wa zaydun su ko defee ñu ne zaydaani wadi al isnayni wa agna anil mutaatifayni kooku moo di xaddu tasniya su ko defee tasniya boobu nag na nga ko rafaaye bil alif ci alif dégg ak wa kilaa ak kilaa kilaa kon xanaa du tasniya déedéet li an al atfa yaqtadi al mugaayarata léegi boo nee diw ak diw rek ñaari jëmm yu bokkul la nangam ak nangam ak nangam ataf dañu xamle ni kon ndax dégg nga maatuf ak maatuf alayhi laa yumkinu an yakuna shay'an wahidan kon kilaa bokkul ci tasniya ndaxte wude alis nay ni ndaxam waaye nag fasal bu ñaareel bee koy tàqalee gis ni fasal bi maa wude alis nay ni naam kilaa mawdo on lis ni waaye nag ax naa anil mutaatifay la kilaa moom lam yox ni anil mutaatifay ndaxte kilu nag kilun amul kilaa rek benn baat ko kon du tasniya dañ ko ci yéeg nag yéegal boole ko ci tasniya ni ñu liraabe tasniya maanaam lañ koy liraabe waaye sartu kilaa nag ida wusila suñ ko jokkee bi mudmarin ci damir mudaafan mbir mu muy lu ñu laafal damir ba kilaa moom ndegam damir la laaf ndax mën na laaf lismu zahir te bu boobaa du doonati lu ñuy boole tës kooku liraabu lisimu maqsuur lay amee xaraka gu ñuy nattale ci kaw alif ka ka qawlihi taala kiltal jannatayn kiltal jannatayn mubtada la mandargam li ra rafaam damagu ñu nattali ci alif du dëgg su ko defee ida wutila ndeem dañoo laafal kilaa bi mudmarin ci damir mudaafan amma bu ñu ko laafalee lismu zahir fa huwa muarabun bil xarakaati almuqaddarati ala al alif kon noonu lañu koy liraab kiltaa it kazaka kiltaa mu annas ba ñi nga xam ne ñaari jigéen ñëpp lay jublu ni nga xamee ne kilaa ñaari góor yëpp nga ci jublu kiltaa kazaaka noonu la moom it bu laafee lisim damir nga ni jaatil marataani kiltaahuma raaytul maratayni kiltayhima marartu bi hima kiltayhima booba lañ koy liraab noonu amma bu fekkee lisimu zahir ni ki misaal mi ma wax ci kiltal jannatayni kon liraabam yëpp dañ koy nattali ci alif ay maska lay def kazaaka naka noonu ci yi ñu yéegal ci tasniya isnaani ak isnataani ñoom nag yajriyaani danañu daw ci bu ñu leen dee liraab kabnayni wa ibnatayni isnaani ni ñuy def ibnayni moom tasniya la dëgg la ndax agna anil mutaatifayni li annahu yasixu an taqula ibnun wa ibnun kon moom tasniya la wala ibnatun wa ibnatun yooyu tasniya lañ isnaani nag muy laa yasixu an taqula isnun dong isnun kenn gisu ko ci waxi arab kon isnaani du du du tasniya waaye mulxaq la tasniya ci liraabu tasniya isnataane noonu yooyu yajriyaani fi liraab kabnayni wabnatayni ci liraab liraabu tasniya ji su ko defee seen liraab seen rafaa wax nañu ni alif lay doon aywa wa taxlufu lyaa fi jamiiha al alif jarran wa nasban baada fatxin qad ulima alyaau yaa al alifa alif fi jamiiha ci seen mboole te mooy tasniya ak lépp luñ ca yéegal na nga xam ni alif gaay mandarga rafa waaye yaa moo koy remplacer jarran ci waxtu jar wa nasban ak ci waxtu nasab yaa nag yaawu tasniya nag xaala kaw niha moom yaaga baada fatxin dikk ci gannaaw fata goo xam ne xat ulifa miineef na ko wu yaani wuuteeg yaawu jamu moom day dikk baada kasrin xat ulif da nga naan zaydayni ndéem fat tasniya nga bëgg waaye zaydina muslimayni ndéem tasniya nga bëgg bu dee jam muslimiina nga xam ni kii li nga leen di xame fataa koy dawlu kasara mujj ko bu dee tasniya kee nag safaan ba mu dem ci beneen baabu niyaaba te moo di jàmm muzakkari saalim mu ne warfa rafaal saalima jami amirin aji mucc jamoy amir wa musanib ji firi aji def foot aji def bakkaar ak musanib amir kon alam la alamu góor la musanib sifa la sifas góor loolu mu def ko misaal ci jàmm muzakkari saalim alam lay doon bu góor wala mu doon sifas góor lu mu ci doon it danañu sart mu nekk aaqilin xaalin min ha ittaani am na yeneen sart yoo xam ne danañu ko guddal di sart xam naa yii dafa gën a gàtt nag daal sunu ne il faut nay li ñu koy jam nay alam wala sifa nay alam ni amir wala muy sifa ni muznib muznib moo mel ne qaa'im ak ismu faayil yëpp wala ismu mafool yooyu wala sifa musbiha dégg nga kon la ñuy jamu jamu muzakkari salim sart ba mooy nay alam wala muy sifa te lu mu ci doon nay li muzakkarin aaqilin xaalin min ha ittaanis ah bokk na ci sartiyaat ba tey laysa bi afali faalaa wala faalaana faalaa wala maa yastawi fihi almuzakkar wal muannas yooyu yëpp nag ci sart yi la waaye nag lii doy naa tudd daal maanaam sifa si bu dee sifas góor di aaqil te amul haa u taanis du tee day am benn yu ñu ko mënula def ndax su fekkee afali faala ala ni ni ki tey ahmaru ci góor bu doon jigéen nga ne xamraa kon kon kenn dootu wax ahmar woona di ko jam jam muzakkar saalim naadir la ñu ko dégg ci waxu arab muy wax xaw ma faqadat xaw ma nisaau bani tamimin xalailu aswadina wa ahmarina loolu naadir la kenn du ko qiyaas ndaxte afalu faala u la am seen jamu jamu taksir la war doon fulun xumron way xaw mooy dikk ci alquran moo tax kooku man ba tey sart la waaye boobu sart nag dafa fegg wala faalaana faala bu dee rajulun sakraanu sakraanu si fas góor la aqil yorul ha uttanis te kat du tax nga ni kon danañu mën a wax sakraanoo na ndaxte kooku faalaana mu annasam faalaa la war doon ngiri rajulun sakraanu wa mraatun sakra kookot kon sakraanu moom lañ wala ma yastawi fihi almuzakkar wal muannas ka qatilin wa jarihin du it loo xam ni muzakkar baag mu annas ma ñooyam kookoot su yow dee wax su yow boo di dégg nga sifa di muzakkar sifas muzakkar aqil amul haawu taanis waaye nag comme sifas góoram ak bu jigéenam benn la ni ki nga ni rajulun qatilun wa mraatun qatilun wala rajulun saburun wa mraatun saburun failun joo xam ne bi maana ismu mafool la wala faulun joo xam ne bi maana ismil fail la kooku sifa góoram ak jigéenam ñoo yem rajulun saburun rek wa mraatun saburun waaye nag loolu mooy ba ñu nga xamee ne du am tal farq taaguy tàqalee góor ak jigéen du leen yéeg maanaam ba mu toppee nag man oot ma du dëgg amma boo nee tey marartu bi qatilati bani fulaan ah ndaw sañu rey ci bani fulaan qatilatu sifa sa waaye toppul ci man soo noon imraatun qatilun amma bu dee imraatun qatil nga di ko nettali nga naan eh, nga ne man marartu bi qatilati bani fulaan léegi fokk nag nga def ci taag yi kooku ndax toppul ma waaye bu àndeeg man oot mi góor ak jigéen a ci yàq ci faulun ju yor ismu fail ni ki sabuur wala failun ju yor ismu maful bu yor maanaam ismu maful ni ki qatil dégg nga wuuteeg safaan ba faulun su ko defee faulun moom bu yoree ismu maanaa ismu maful wëlbatiku talxaquhu tal farq góor ga ak jigéen ga dootu bokk naax jamalun rakubun gëleem gu ñuy war gis mu mafoon wa naaqatun rakubatun gis nga dafa wëlbatiku jé fayilu nit boo dikkee mu wëlbatiku moom it su fekkee du ismu mafoon xanaa ismu fayil la talxa talxaquhu tal far nga ne rajulun karimun wa mraatun karimatun ndax léegi ismu fayil la wuuteeg ba nga naan rajulun qatilun wa mraatun qatil noonu ñoo safaanoonte ñoom ñaar ñoom ismu fayil la maridun ko feebar ismu fayil la moo tax góor gaak jigéen gi du bokk dégg nga maridu ndax marida feebar na fa huwa maridu dégg nga su ko defee salima jami amirin wa muznibin mu ngi ciblu jamu muzakkari salimi lépp loo xam ni day alam mbaa muy sifa te it lu mu ci mën doon muzakkara ko moom moo xam ne aaqil la moo xam ne amul haawu tanis loolu doy naa yam nag yi ma doon wax yëpp guddal la te ay yooyu ay dégg nga su ko defee salima jami amirin wa mun aywa nay wuuteeg seen muxtaras laa la war a wax ndax dama ne nay muzakkar bu dee mu annas kenn du ko ko jamu muzakkar mu annas kenn du ko jamu jamu muzakkar saalim aywa nay aqil su dee muzakkar te du aqil kenn du ko ko jamu moo xam alam la ni ki laaxiq alamu fas wala sifa la ni ki saabiq alamu fasu dawkar naa naatu sifa kenn kenn du wax sax ndaxte góor la sax waaye nag ñàkk xel xaalin min hay tanis na fekk amul haaw tanis su dee alam di muzakkar di aaqil waaye nag alam ataawu hawtaani si ci niki rajulun allaamatun wala nga ni talxatu alam la waaye hawtaani si ca ne alamu góor la aaqil muzakkar aywa naka noonu allaamatu it sifas góor la di aaqil waaye nag taagi moo ko yàq foog nga ni min kulli alamin aw sifatin li muzakkarin aaqilin xaalin min haa taanis wuteeg talxatu ak allaamatu laysa bi afali faalaa wala bi faalaana faala wala ma yastawi fihi almudakkar wal muannas kooku la dégg nga wa shibhi zayni ak yu niroog yaa yor yo lu niroog loolu nag mooy lii ma la takkal rek nay mudakkar nay aqil nay xaalim nay tanis amul afalu faala yo wa wa wa bihi ishruna wa bihi ishruna wa baabuhu ulxiq wa ulxiqa ngay wax yéegal nañu nag bii ci jamu muzakkari saalim it ay baat yoo xam ne yii mufrad la dégg nga yii leneen la yéegal nañu ci ishrona ishrona mufrad dong la ndax du jamu du dëgg ishrona mooy yaari fukk du dëgg te aqalul jami salaasa su doon jamu kon baatu ishrona il fokk du mën a manqué fanweer du dëgg te kon itam baatu arbauna baatu salaasuna kon moo baatu tisatu kon ñooy yem ah ndax bu fekkoon ni jamu la dëgg kon kon salaasuna ñetti salaasun da koy daal di ni nga xamee ne yetti zaydun yoo am mën nga ni zaydoona yetti qaimun yoo am mën nga ni qaimuna waaye soo amee yetti salaasun doo ko mën tuddee salaasuna